fàggu téef bu dagan ci weeru koor kon jullit bi war naa xam ne même bu dul weeru koor lu dagan la war dunde euh, fàggu lu dunde lu lislaam yoonal la ci ab julit sharia da ko santaane yàlla tabaraka wa taala dafa def bëccëg bi pour doomu adama ut lu mu dunde wa jaalna al layla libaasan wa jaalna an nahaara maasha yàlla nee na guddi maa ko def sutura ni yére di suturaale nit noonu laa defee guddi mu nekk sutura waaye bëccëg bi ma def ko pour ngeen sàkku lu ngeen dunde borom bi tabaraka wa taala ñu ñu dox ci kaw suuf si pour ut lu nu dunde lu nu lekk lu nu naan ak lu ñu suturul ak fu nu dëkk sunu borom subhaanahu wa taala mu ne ñu famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur mu nekk ay aaya ak ay hadis yu nu sunu borom subhanahu wa taala sant nu fàggu lu nu dunde waaye mbokk yi ñun ñëpp ñu war a ànd xam ne li nuy fàggu lépp ak lépp luñ ci war a def nanu fàggu lu dagan yàlla tabaraka wa yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi wax ne kenn ci yéen lekkul lekk boo xam ne moo gën lu mu liggéey ci loxoom ca la ñu waxee sax ne yonent yàlla daawud kaana yaakulu min amali yadihi moom day daawuda lu mu liggéey ci loxoom la doon lekke kenn ci salafi nee na am na ci bàkkaar yi bàkkaar boo xam ne dara du ko dindi lu dul faggu faggu wu dagan ixwatal imaan jullit na lekk lu dagan su bëggee ay jaamu yàllaam yàlla nangu ko su bëggee ay ñaanam yàlla nangu ko la lekk lu dagan gis ngeen saad ibn abi waqas wax na yonent bi alayhi salaatu wasalaam man de sama yaay dama ko bëgg te sama yaay dafa nar a dee ak kiifir ma bëgg nga ñaanal ma yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax sama yaay ñëw ci lislaam yonent bi yëkkati ay loxoom ne yàlla yal na nga jubal yaayi saat yow yàlla yal na nga jubal yaayi saat saat bi mu demee seen kër mu fekk yaay ji ndeysaan ci buntu kër ga di ko xaar daa dugg si rek yaay ji daa di yëkkati baaraamam bi ne ko ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah saat bég daw dellu ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bim ñëwee ne ko yaa rasulallah sama yaay tuub na sama yaay dugg na ci lislaam waaw yonent yow dey dangaa ñaan rek yàlla may la waaw yonent teg ma koo defal yonent bi ne ko duma la ko defal yow kenn saat xeet bi yëpp laa koy defal sama xeet ummat yi saat daa jommi ne ko yaa rasulallah loolu man dong maa fi nekk maa ko sàkku ci yow naka nga koy defalee xeet bi mu ne ko saat pour nit ñaan yàlla may ko loolu lu yomb la mu ne ko nan lay demee mu ne ko atib mata amaka teeyalal li ngay dagan li ngay lekk na dagan li ngay lekk su daganee rek boo ñaanee yàlla yàlla may la kon doomu ndey dana jaadu kon ñu jëm ci ay bëccëg yu sell ab jullit war cee fàggu lu dagan lu muy xëdde ak lu muy ndogoo ak lu muy dundale njabootam dana ne nekk musiba nga woor ba ngoon amoo looy ndogoo lu dul lu aroon luqmaan doon na wax doom ji ne ko yaabu naya istain bil kasbil xalaali anil faqri doom dimbandikool ci dunde lu dagan dunde lu dagan nga ñàkk sax moo gën nga dunde lu araam nga ñàkk moo gën ngay dunde lu araam mbokk jullit yi ab jullit sant lañ ko mu wut alal sant lañ ko mu liggéey sant nañ ko mu wut am koom waaye na ci fexe rek fu mu ci mën a toll muy def lu dagan lan ko sant yàlla woona yonent yi ne leen yaa ayuha rusul kulu min altayibaat wa amalu salihan inni bima taamaluuna alim yaa ayuha alladina aamanuu kulu min altayibaati ma razaqnaakum washkuru lillahi in kuntum iyahu taabudun yàlla woona yonent yi ne leen yéen yonent yi ñu ne a ah, mu ne lekk leen lu dagan te jëf-jëf ju baax ndax lu ngeen def yàlla nee na xam naa ko noonu yàlla woowee yonent yi noonu la woowee way gëm yàlla yi ne leen yéen ñi gëm yàlla it lekk leen lu dagan la ma leen wërsëgal su ngeen lekkee lu dagan li ma leen wërsëgal ba pare ngeen sant seen boroom su fekkente ne moom dong ngeen di jaamu kon ixwatal imaan nañu yëg ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na ëllëg yowmal qiyaam doomu aadama bu ne cëpp yowmal qiyaam danañ ko laaj ñeent bokk na ci an maalihi min ayna iktasabahu wa fi ma anfaqa sa alal foo ko jële ak foo dugal sa alal foo ko jële ak foo dugal kon nanu góorgóorlu sunu kéemtalaayal kàttan li nu war a dunde ci koor gi du nu woor ba ngoon di ndogoolu araam wala fanaane naafila ba pare di xëdde lu araam alal joo xamante ne jëlee ko fenn ci lu araam loolu nga bugg cee dunde weeru koor gi di woor yàlla bëccëg yi gudde yi ngay lekk lu araam xam ngeen ne loolu musiba weesuwu ko yenent bi nee na doomu aadama bu ne cëpp ëllëg yowmal qiyaam yàlla dina ko laaj ñeent bokk na ci sa alal foo ko jële ak foo ko dugal sa alal ji foo ko jële ak foo ko dugal démb lislaam góor bu daan xëy soxnaam day jàpp ci loxoom ba ci buntu kër gi ne ko yaa haza mu ne ko labbayk yow diw mu ne ah diw mu ne ko ah ittaqillaha fi rizqina mu ne ko ragalal yàlla ci sunu wërsëg bi nga fi indi de fa innana nasbiru ala al juuci wala nasbiru ala an naari ñun day mën nañoo mën a muñ xiif waaye mënuñoo muñ safara kon lépp loo nuy indil ci kër gi na dagan nee na ulaayika nag humu salihun ñi ñooy ñu baax ñi ñii ñooy ñu baax ñi dañuy génn di moytu lu araam di ut dagan di indi seeni kër ndax ñu mën a jaamu yàlla jàng ngeen ci xadis arbauna nawawi benn waaye ngi nii bu tukki yàgg fa trop koo xam ne yu tiilu safar asas abar yamuddu yadahu ila sama yaa rab yaa rab yonent bi nee wa matamuhu xaram wa malbasuhu xaram wa xuziya bil xaram fa anna yustajaabu lahu waa waajaa ngi moom ngi tukki yàgg fa dem na ba kawar ga cuqaaral yére ya soo ko gisee xam ne kii di ku sonn la ku yàgg la ci tukki waaye waa ji day mu nga tàllal ay loxoom ci asamaan yëkkati loxo yi ba ba ñuy seen poqataan ya ma nga naan yow sama boroom di ñaan yàlla yow sama boroom waaye yonent bi nee na waa ji kat la muy lekk da araam la mu sol dafa araam fa mu nekk dafa araam la mu làmboo dafa araam yonent bi nee na ku nii naka la ko yàlla di nangule yaa ngi sollu lu xaraam yaa ngi lekk lu xaraam fi nga nekk dafa xaraam kër gi nga dëkk sax ci lu xaraam nga ko tabaxe lépp loo am ci lu araam nga ko amee yeneen bi na ku mel nii fa anna yustajaabu la naka la ko yàlla di nangule ñaan kon nanu góorgóorlu kem talaayal kàttan ñu bàyyi lu xaraam balaa koor dugg ñu jóg ci dajale lu dagan ñu dunde ko ngir yàlla tabaraka wa taala dimbalinu gi jeexee sax ñu mën a lang ci lekk alal ju dagan mbokk jullit yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na yaati ala nnaas zamaanun laa yubaali almar maa axaza minhu amin xalaal am min xaram sallallahu alayhi wa sallam nee na jamono ngi ñëw nit day dootul faale fu mu jële alal daa dagan wala daa aram moom daal na am sama fuu ci dagan na wala araam na moom naa am rek na dajale rek sama yoon nekku ci waaw dagan araam na loolu moom faalewu ci dara naa am rek suñ tey jii nag loolu mooy suñu jafe-jafe ñun ñëpp suñu yoon nekku ci dërëm bi ñu am araam na wala araamut te xam ngeen ne ku lekk lu xaraam soo jullee yàlla du ko nangu man akala luqmatan min xaraamin laa tuqbal lahu salaat arbaina yawman ku lekk benn tibb bu araam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla du la nangul junni quarante jours kullu maalin nabata ala xaraamin fannaaru awlaa bi bépp alal boo xam ne cosaan bi dafa araam safaraa ci yay kon doomu ndeyi lool mooy dar ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu borom màgg mu jéggal ñu njuumte yi waaye musiba bi nga xam ne balaa bi nga xam ne moo wàcc ci àddina bi tey lëmbe ko tiital ñëpp jaaxal ñëpp yal nañ ci yàlla musal ñi mu dal yal na yàlla wéral leen jullit yi mu dal yal na yàlla yërëm leen dugal leen aljanna yal na yàlla aar leen sàmm leen ñu ngi leen di dénk borom bi yal na yàlla taxawu leen asalaamualeykum wa rahmatullahi wa